foo bëggee dugg biir fekk yaa ngi jógee Linguère may nañ leen nga ñëw ba ci rocade bi nga taxaw bu la neexee nga jël côté gauche wala nga jël côté droit bu fekkente ni da jóge yoonu yoonu Darou Moussi may nañ leen nga ñëw ba ci teenu sëñ Mourtala bi may nañ la nga jàll rond point bi ba nga jéggi ba ñëw ci ci ci ci ci teenu sëñ Mourtala bi nga taxaw foofu bu la neexee mën ngaa jël suuf si nga génnee tali bi jëm belal wala fu la nga jëm. bu fekkente ne nag dangaa ngaa jóge euh, maanaam ñi nga xam ne dañuy dañuy jóge dakaar ñi jóge dakaar am nañu ñetti façon doxalin yu ñu mën a duggee bi Touba benn bi mooy tali bi jóge Ngaabu ñaari autorite bi bi jaar Ngaabu beneen bi mooy balaa ngay dugg Mbàkke station Touba Oil bi jaar ci héliport bi génn ci garage bu bees bi nga duggee Mbàkke ñëw wala nga jaar Mbàkke bu fekkente ne da ngaa yor laissez-passer bu fekkente ni yoruloo laissez-passer booy dugg Mbàkke am na benn barrière bu ñu fa teg barrière boobu mun nga ko jël côté gauche wala côté droite bu dee côté gauche bi la boo ko duggee yaa ngi ñëw ca raay ba jëm ci SDE ba génnee ci station bi nga xam ne moo jëm Kër Baye ba Gueye war a génnee Touba ca garage bu bees ba am maa loolu mun nga jaare côté droit bi nga génne tip bu fekkee da ngaa jógee Kaffrine boobaa doo duggee biir gaaraasu tibbi biir bi Mbàkke da nga koy weesu jéggi tali bi dem gaawaan boo demee gaawaan ba foofu nga xam ne la ñuy wax jàkkay tijaan bu la neexee mun nga fa wàccee lu la neex wala nga dem ba ca poste courant ba jaaree gaawaan bëtt dem Daaru Salaam génn ca raay ba bu la neexee mun ngaa génnee foofu ci rond-point Mbàkke bi wala nga topp raay yi ñëw ba ci corniche bi nga xam ne foofu lañ la may nga yem. beneen bi ci topp mooy camion yu mag yi camion yu mag yi mayuñu kenn ci ñoom. mu weesu rocade bi est walla ouest rocade bi oto fu mu mënta jóge ci foofu lañ leen yemloo bu leen neexee nag mën nañoo jël rocade bi ñu dem fu leen neex waaye foofu lañuy yem ci période yi ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru décembre bi bañ ñeenti weer ci weeru ci weeru novembre astafurlah ba ci ñeenti fan ci weeru décembre waaw léegi nag di ngeen gis ay barrière ci biir dëkk bi barrière boo ci gis rek nga xam ne noonu la mën a demee surtout fi nga xam ne dafa jege jumaa ji jege jumaa ji may ñu jege fa pour gaare fa otoom am maa ñu yor laissez yi nga xam ne préfet moom la joxe pour ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo liggéey bi di liggéey ci wàllu màggal gi wala service de sécurité yi maanaam muy gendarmerie di police di sapeur wala ñuy def intervention assainissement ak yan yeneen ak yeneen sareet yi nag moom ci màggal gi lañu bokk waxuñu leen ni bokkuñ ci màggal gi waaye tali tali lañ lañ bëgg ñu bàyyi mun nañ jël am nañu ay yoon yu bari ñu ngi jagleel daanaka sax ñoom waxtaan nañu ak ñoom ba yoon yooyu xam nañ ko xam nañ fi ñuy jaar dinañ teg ay ndaw yoo xam ne dinañ leen jàppale ci liggéey boobu ba ñu mun a jël yoon yi nga xam ne moom lañ leen jox fekk